شريف دغما اندي ليغي سي بن حديث مو لي يونتي بي صلى الله عليه وسلم توك اك صحابه بام ياغ موني لين لولا اني اخاف عليكم تغير الاحوال بعدي لا امرتكم ان تشهدوا لاربعه اصناف بالجنه اولهم امراه وهبت صداقها لزوجها وزوجها راض عنها والثاني ذو عيال كثير يجتهد في المعيشه لاجلهم حتى يطعمهم الحلال والثالث albaarru bi waalidayhi warraabiu attaa'ibu min azambi ala an laa yacuuda ilayhi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jekki mu ni saxaaba yi bu ma ragul woon ragalul woon daal sama gannaaw jamono soppeeku dinaa leen wax ni ñeenta ngi nii ñoo xam ne ku leen gis ndokkeel leen xam ne ay niti àjjale la ñu shérif moo shérif ndax ñooñu jarul xam kañ kon laaj ma ko ma wax la ko la koy laaj sa maam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki ci jiitu ndekete mooy jigéen ji yàlla may boroom kër mu jëlaat may nga ko boroom këram mayoon di warugar delloo ko boroom këram ni ko damaa bëgg rek nga ñaanal ma te yàlla rek tax ma am sëy bu barkeel te nga téye ma téye bu rafet waaye lii daal nga yëkkati jox ma ko muy warugar ak yooyu dama fi waroon nekk di xew ak yooyu waaye détail la du ci fekk jël ko nga defaat ko ci sa liggéey nga investiraat liggéey bi gën a dox te nga téye ma te yàlla tax jaamu ci man yàlla ma jaamu ci yow yàlla bu ma la tooñee nga jéggal ma boo defee lu metti ma muñ ko waaye dama bëgg rek yàlla te yàlla rek tax kon téyel loolu yonent bi ne jigéen ju def loolu booy dee di dem àjjana eh na Sénégal ah, maam ko ndeysaan radiyallahu anha kera ba ko maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anu joxee mayam googu noonu ko def mm. do nettali mag ñi nee ñetti xaaj la ko def ni ko benn bi defal ma ko ci sa zawiye bii ngay liggéey ci ndar benn bi gis naa la nga bëgg téere te bari woo doole jënde ko ay téere mhm. benn bi man Roqaye Ndiaye dama ni woon saa yu may am boroom kër dinaa jël ci may gi lu ma weexale sëriñ bu ma ñaanal ma am njaboot gu barkeel waaye nag gisuma ko la gën a maandu si mhm. doomi mam Ousmane ji kon dama lay weexal bu ko defee nga ñaanal ma ma am njaboot gu barkeel Seydi Hadji Malick ñaanal ko fa tabaarakallaahu waaye ñaan googa tey mooy Serigne Sidi Ahmed ma des ca Salonel. waaye ñaan googa mooy borom bone kaare bi Serigne Babacar Si xalifatuma bayna samaa'i wal ardi kon jigéen ñi boog bénéfice a ngoog mhm. yow mi nga xam ni samay lekk nga ko te émission bi ñëwagul mhm. am nga solution mhm. xam nga luy solution bi mooy dabaat ko noo koy dabaatale mooy bu la yàlla mayee ngay liggéey sa boroom kër moo la war a yor na am jomu yor la waaye loo mën a jàpp ci kër gi jàppal ci kër gi ndaxte nag dimbali dafa baax te dimbali la ki ci war mooy zil qurba ki la gën a jege te jigéen kenn gënu koo jege ka jëkkëram kon wahabat sadaqaha li zawjiha wa zawjuha radin anha gis nga lim ci laxas waaw mooy sa jëkkër may nga ko may gi ba pare mu continuer di la gërëm mhm. ndax léeg-léeg jigéen dina la may dara doon sa soxna boo ko mënoon a wàccuwaat da nga koy wàccu ndax ñaari baat ñett yu ngeen wax mu ne ah tay de la tay la waaye bërki démb ba ma lay defal nangam ak nangam <laughs> tey de man nga maa faye lii boo takkee beneen jabar mu ne tey de man ngaa takk beneen jabar waaye ba nga jekkul woon man rek la woon nangam nangam wax jooju yëpp da nga koy bàyyi fàtte la nga maye woon <laughs> bu ko defee di muñ te yàlla tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jigéen jooju ko dajeeg moom ndokkeel ko ndax jigéenu àjjana la allahu akbar sharif bu ñaareel bi samaam sallallahu alayhi wa sallam nee na wa saani ku ñaareel ki mooy ki nga doon wax léegi <laughs> ذو عيال كثير يجتهد في المعيشه لاجلهم حتى يطعموا الحلال مويكو ام جابوت يالا دوغال سا دولي باري وول nga mënon wër di taxawalu di yalwaan fu ne nga dem fa di solal nit ñi nga ni duma ko def ngani nan lay def ngani suba guma xeye dina wut fuma journal yewu pour mën am dara luma yobul sama njabot yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñak gogu ngay tour mo xam journal yi ngay def mo xam leneen ngay def waye dal yaangi ngi ngir sa jom ngir am lo yobul sa njabot yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena so amé am tiyaba so amul am tiyaba waye xamal ni fi la sa coono di yem ndax bo faato aljina nga jëm ndax coono bobu ngay daj ci sa njabot allahu akbar ay tafsir شريف بو نيتيل بي سمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا سي دام نيان نيتيل بي دوج كو باي با صبح بولا نيهي اي دارا داخ وقتو بي موكو مايتول waye damay lay ñaan rek bi ñu bañ ko sor xoso bu ko defé suba nga yaatal ko ndax jikko yi jikko yu am solo la te tafsir ñun ñëpp ku ci nitu billahi sa affaire dina bax ñuy ñaan suñu borom yal na la yàlla bàyyi nga yag fi nga ànd ak wér ànd ak tal sagu diine gi sagu rew mi nga sagu mbokk gi nga ñuy ñaan suñu borom yal na la yàlla taxaw bi jaayi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bunayhi musibtayni a'lamil huda wa bi sahbihi wa tabiina lahum fahum هم ساداتنا أهل المكارم والندى بارك الله خالي عثمان آه، لا إله اك أم صلو امصلو أم صلو الحمد لله اك أم صلو ما شاء الله